waaw ni ma koy waxee rek fet la war a nekk tey jii ndax euh, bu fekkee qualifié woo match dafay tactique wala mu technique wala mu mu ngay calculer lu bëre mais tey waa Thiès yëpp dañu génn pour mu nekk fet et fet mooy lan mooy joueurs yi dañu war jël plaisir ba pare doo koy joxe plaisir bu mag nag si ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo leen di seetaan waaw ah, Sadio moom mën mu kenn waxatu ko maintenant nag comme ni may wax rek xam nga ni tam mën nga mën football ba pare doo bokk ci ci benn formation ci benn ci benn formation bu nu teg ba pare. maintenant problème problème bu bu rëy moo di il faut ñu toog ñoom ñëpp ñu waxtaan xool Sadio ban parce que toom équipe bu ñu ko defaree rek dañu jël kenn ki nga xam ne moo ci dàq football kenn ki nga xam ne c'est le leader ñu def autour de lui et je crois que Sadio jot naa ko il y a pas longtemps il y trois jours. Euh, xam na li Sénégalais yi di xaar moom wax naa ko li Sénégalais yi di xaar ci moom ndax ku ma dem mën dem c'est la même question moom mooy génn et je crois que il est sensible à ça et pare na il faut pas il faut pas tamit ñu. waaw dootul xale ndax tey jii boo demee tey jii ba nga xam ni mag ñi xale yi nangul nan la léegi mag nga c'est moom nag moo am tey jii Krépin avenir la Sénégal yëpp lañ ko doon waxee léegi nag moom moo am def na comme Mbappé xale bu tuuti la teewul na équipe de France tey jii samp na fa ndëndam nee kenn ko fa jëlee Merci.